asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu di nuyu tedd eh, di ko siyaare sëriñ mu ko waral danooy jëm ci ay élection eh, mu am ay choix yu président def eh, ñu nit ñu ci am ci ay njàngat yu bëree bëri waaye ñu toog di waa jël élection yi ndax mbir mu ne bu fekkee da caa jëm da ngaa war a teg jël say engagement jël say matukaay bala nga cey dem moo taxoon ñu ne tekki sant nañ yàlla nag bi nga xamee ñi ngi ci bëgg a egg ak jàmm fekk it waaj yi nga waroon a waaj yëpp waaj nañ ko waaw loolu liñ ci mën a leeral du bari ci zone bi parce que tuuti rek laa ci bëgg a wax zone yi ñu ngi ko créé fii ci sama salle bi fii lañ ko sosee woon bi nga xamee ne élection présidentielle yi jàll na euh, biñ ci liggéeyee lu toll ci ay vingt quelque quelques ci sama biir kër mboolem responsable yi fii lañ doon daje ci salle bi ñu liggéey ci ba noppi ba nga xam ne tëj koo ci des ñu def suñuy analyse euh, mu am benn bis boo xam ne fii ba deux heures du matin fi la maire Touba toog ab laat ka Cheikh Abdou Lahad Gaïndé Fatma maam Khary Mbacké mu desoon ki nga xam ne mooy euh, Sadaga boobu yàlla daa dogal mu amoon accident bu defoon assemblée waaye teewut ñu ngi doon jokkoo moom téléphone conférence par téléphone la doon def bi ñu paree ñu dem seeti ko ñu confirmer lépp ne nan xaaj dëkk bi on sonne dix la woon ñu def yokk ci beneen bi Kër Ñang maam may demandé ko yokk ko mu nekk onze ñu dem Touba dakaar jege tubaa dem Dakar jébbal ko euh, Farba Ngom mi président waxoon ne dañ ko dox ci loolu nag lan topp ba élection yëpp ci noonu lañ sukkandiku ba élection yi jàll ci jàmm euh, waxtu yi ñu toll nag ñu jëpp walaat ci ay liggéey ma jàpp ne euh, loo gis ak waxtoom loo gis ak heure ñu jëm ci ay liggéey yoo xam ne nii yaakaar naa ne ëllëg ñuy yaakaarloo ci suñu biir wala son yan créé woon te sutuñu soon yi ndax am na soon yoo xam ne ñooñu ña nekkoon nekkutuñu ci wala ñi ci nekkoon ñi ngi toog Euh, am zone yoo xam ne amoon na problème ci jamono yooyu yaakaar naa ñu war a xalaat leneen lu dul di jublu ci ay problème zone parce que lu bari dañoo xaar ñu war a jàkkaarloog ay opposants war a jàkkaarloog ak yeneen ci conseil département bi ñu jëm nga gis nag kon li may wax rek toujours dafa mel ne Benno Bokk Yaakaar euh, dafa nekk ci benn lëndëm lëndëm googu nag ëllëg ñuy jàkkaarloo ñeen war a jàkkaarloo ñooy jàkkaarloo seen bopp ci jàpp naa ne euh, ki nga xam ne moom la président tànn ci bi mu ko tànnee man ma nongul ko ndax man. jàppale woo ko moom président laay jàppale parce que président laa ko seqal donte Matar am nañ jàmm bokk kaa bu nu féete woon euh, ma nangul ko loolu euh, ba ma ko nangaloo loolu it teewut euh, ban defee seen liste it seet fa leen ci neex ñu dugal ma ci teewut ma nangu ko mais bi ñu demee ba élection yi war a jub si ma dégg ay gore yoo xam ne ñu ngi ay kaddu yoo xam ne di wax ne son bi sëñ Modou ma nga ma ngay watee fee ñu ma nangam nag ca xanaa danoo fàttalee kii seen bàyyi ci politique muy Cissé ngaabu la doon watee watee mais ci dëkk bi la doon euh, teewutu mu ko doon contrôler lu fi doon dox moo di mu di ko doxal ah keneen noonu ci yeneen dëkk keneen yoonu ci dëkk kon li koy indi dafa mel ne euh, li may wax waxtu wu nekk ay nit nekk ci seen gannaaw ca ki ci njëkk a mooy Abdou Lahad Ka Abdou Lahad Ka ci jëmmi boppam keroog bi nga xamee ne moom lañ indi carte yi nga xam ne euh, moo jëm ci wàllu hôpital bi ñu koy jox ñun kilifa yi te fekk ne ci protocole bi nam jegee biir présidence ah suñ ñeenti tur yi ñun ñi nga xam ne. ñoo taxawaloon son yi suñ ñeenti tur yooyu ñoo ci jiitu ñu jox nu carte VIP bi jox ñu yeneen dix cartes yoo xam ne pour ñu jox ko responsable yi ñun àndaloon ah foofu la coow lu jëkk a tàmbalee parce que dana laat lañ ko jox sëñ Mour woon ñu ko lañ ko jox ba dem taxaw fekk si Abdou Bali mu taxaw mu yore ko mu ne ma du ma ko jox kenn ku dul yow parce que yaa jiitu woon son boobu foofu la wax ji tàmbalee ma jàpp ne ay waxi caaxaan la ñu continuer wax yi ba bërki dee moom moom ci boppam ay gone ñëw ci moom mu wax ak moom mu yàgg jëflante moom parce que laat taxawaayam ci dëkk bi damay wax ne ñun feneen lañ koy xaar fi ñu koy xaar mooy fan nan la ñuy def ba dëkk bi wàllu courant bi bi yokk nan la ñuy def ba dëkk bi wàllu marché yi ñu defaraat ko nan lañ war def dëkk bi ci ndox yi taa ñu xool nu ñu koy maasale nu koy defaraate nan lañ war a xaar ci social ni mu dimbalee nit ñi ci coono bi nekk tey nga dem ba saam coono ya fa nekk ay lëndëm ñu di nga dem ba bërki dem am ngiraane ndox yi taa fa ak euh, coow lam fa am ban yuuxoo ko fa c'est que yuuxoo yooyu bu xasee ba tàmbali dootu fu mu dem ci dëkk bi loolooy am ndax doonte ñu nongul nan ndigal li nga xam ne sëriñ Sidi Mbàkke def na ko ñu nongul ko ko dëgg-dëgg ca mu doon ndigal loo xam ne moom lépp lu mu wax rek ak lépp lépp lu mu bëgg bëgg dëkk bi euh, jaar ci aw yoon la la sëñ Sidi bu defee loolu moom ci jëmi boppam mu jël waneen yoon jaar ca wu bokkut wa nga xam ne moom lañ koy séentoo ëllëg mu jublu ci soxlay nit ñi lu dul dee def fu mu déggee gone gu yoru làmmiñ Euh, nekk ci kenn ci ñun responsable yi parce boo seetloo ñu dajee ci ñoom ñëpp nekkoon nañ ci ci ñun ci ci ñun responsable yi ah nga gis ne kum ci dégg ne gone gi rek yor na làmmiñ mu woo la daggalab wala mu woo ci biiram ah nga nga di ko défendre te jàpp ne moom liñ ko waroon a défendre ñoom ah mooy fexe ba mun xëyee ba jant bi so ñi ngi gis quartier ak nit ñu ñere ci ay jafe ñu dem ci commune bi dénoncé ko loolu lañ ko waroon a jàppale loolu lañ ko waroon taxaw waaye ko taxawoo ko ku yëkkati kàddu ñu dal ci kanam kilifa gu yëkkati kàddu ñuy dal ci kawam jàpp naa ne loolu taxut ñuy wax ab commune am na lu ci ne musu cee ne mais am lu ci ne mu mu leer na bala may daaneel ci loolu mu leer na tey ab commune waris koo yore loolu ndaw ñi ñi lay jàppale dañoo waroon a xëy ci soxla yi nit ñi ak yitte nit ñi di xool fii am na problème fii am na problème waaye diw yor na lamiñ mu ñaaw récolté naa ko indi naa ko am ak ci ay gone yoo xam ne sax lu ne leen yekk président Macky Sall lañ ca teewul leen ci commune bi que mooy buñ wax moom dara moom ah, loolu duñ ko yore ab commune bi a def demal fekk ngiraaneen wala nga dem fekk saam wala nga fekk beneen quartier nga dem dimbalee leen ko wala quartier bi nga dëkk waaye doo dem di ko def ci ay gone yoo xam ne bu ma kenn laal bu ma kenn tudd loolu duñ ko ci danoo wax ne képp koo xam ne yaa ngi ragal maanaam euh, ku dee ci ak lool da ngay ragal ku yërnu képp koy wut ku euh, lu la défendre xamal na yow ci sa jëmmi boppam euh, nekkoo ci ak jub loolu mooy dëkk bu fekkee nekk nga ci jub wéy ci ndigalu sëñ bi li taxoon sëñ bi tànn la nga nekk ci yaakaar naa ne doo wut ku lay défendre parce que lépp ci ak jub parce que boo xoolee dëkk bi ni muy doxee xoola bërki dem rek la euh, Touba ci kanam susu ñaata ci ay lamp lañ def ñaata ci ay kii ba ci koñ bii boo ci feneen ak feneen ak feneen ñu taxaw ci dëkk bi waxtu bu nekk ñi ngi jàppale waa dëkk bi ca bërki dem lañ taxaw ah yow nga nekk ab commune yor ko juróom-ñaari at ñu jëmaat ci ay séance ñu woteel ay bit ay milliards ëllëg nga taxaw ci loolu bërki dem nga dégg fii ki taxaw benn état civil nga taxaw pendant ay ñu lay wax ay un mois ki génn di ko wax est-ce que noonu la ñu yoree commune ca ku wax ñu ñu yooxu mooy mooy commune bi ca ndaw ji dem nañ ba repère yooyu amatuñu ko parce que ndigalu sëriñ bi la ñun mbokk yi ñu ànd ci nongul sëriñ bi ay ndigalam yow yow ci sa jëmbi boppam nga sant Mbàkke bokk ci dëkk bi te kenn mënu laa génne ci dëkk bi ndax sa maam kër yi wuuf ci maam yi ci sa kër maam bokk mu leer na nañu ne ndongu ndigalu sëriñ boobu ah sëñ si di digal ci ndog ndigalu sëñ Muntaxa nga nongu ko ah yow boo ko nongoo ba noppi mais moom mii maire bi war na laa mën a delloo ñukkal ci li nga bokk ca nongul ko ci ndigalu sëñ boobu mais ëllëg mu delloo lu njukkal moom bu kenn wax ci dëkk bi moom loolu lay moom nay def li muy def ci bu kenn wax mu jël ay gone mii ne leen di leen fay ay salaire ñoom ci seen jëmmi boppam kenn ku ne di yëkkati kàddu ma jàppale ne lañ ko war a mën a jàppale mooy wàcc ci dëkk bi fu gis ne fii amuti làmp fu ñu gis ne fii euh, mbedd yi am nay problème fu ñu gis ne sant santé nangam ñu ne ko fii lii doxut lii doxut loolu lañ koy jàppale mais duñ ko jàppale ci mu mel na ab armée yor ku wax ñu attaqué ko jàpp naa ne loolu du repère boo xam ne pour dëkk bi la ku sant Mbàkke wala ku mën di doon ñu koy xas ci dëkk bi jàpp na ne ku sant Mbàkke benn pël boo ko jàppee ca mbedd ma ah boo boo ne pël ba laalaal nga pël yëpp kum neex ak kum naqari loolu la yàlla dogal kon am na ci yoo xam ne nii bu ko demee di ko yëkkati di ko wax di ko jëmale ci kilifa yi ci dëkk bi ku wax ñu attaqué la ku wax ñu nangam xam ne kon moom la ko taxoon a jëkk ak la tax lañ ko nongul moom xamut mooy lan euh, non xam nga ñi jaar ci man jaar nañ ci man jaar nañ ci ñeneen jaar nañ ci maneen ba egsi ci man ba egsi ci moom mais toujours damay faral di wax ne nit ku naan politique gu ma looy dajale ay gone yu politique si loolu moo war a poser question boobu parce que yow bu fekkee ne da nga ne man politique gu ma waaye gone goo gis muy politique ci aw laa làmmiñam ñaw nga dajale ko ah ah ko ci responsable yi dajal ko kon kay yow yaa ngi def lu raw politique waaye politique wul na ko wax ñi ko xamut ñun xam nañ ko à l'époque jamono Ablaye Wade loolee nag moo amaat ci jamono yii ñu toll mi ngi mi ngi ne mi ngi jàppale Macky Sall mais mi ngi jàppale opposant bi ci ci suuf kon yooyu yëpp day ay ay anam yoo xam ne nii moom aw façon doxeenam la dama bëgg ab Abdoulaye Ka xamal dëkk bii sëriñ tubaa moom lan yaakaar ñu nangul la dënk gin li ko dénk nangul la ko bu baax a baax waaye dénk gin la ko dénk ay milliards muy dugg ci dëkk bii ñu defale ko muy sa budget milliards yooyee nag ñun ci suñ jëmi bopp ñun kenn ku ci ci ñun am nga ca loo war a wax boo ko gisee mu def ko nga def ko ak boo ko gisul ndigal li moom amuñu ci lu ñuy wax waaye nag ni nga koy yoree ak ni nga koy doxalee ci dara baaxu ci am na droit ne la nii koy doxalee ak lii ñu lay jox fi nga koy dugal ak ana fi nga koy dugal ak li nga koy def waaye bu fekkee ne maanaam yow sa résultat instant bi ñu toll ni ma koy bëgg a jàngatee mooy danga danga ay ay ndaw ngay fay ngay ndaw yooyu ku ubbi gi mi ñëm na dëkk bi nangumut wala koo ci gis ci ndaw ñooñu sax muy ubbi gémmiñam di wax bu yàggee nga récupéré ko bu fekkee ne tax a jëg da jàpp ne li tax ñu jox la ko xamoo ko man sëñ Modou Bara Dolly nag lenn la lépp lu ma dugg dugg naa ci lu mu ci dugg bàyyi junni ndaw bu doon wax par bis di attaqué ci sama jëmb ji di wax lu ñaaw yëgalu ma ko sama yaram du yàgg-yàgg ba ma tontu gone yi waaye nag man bis bu bu ma xëyee semaine bu ne danaa jël organes yi wax lu jëm ci saw doxaleen ci dëkk bi loolu moom jàpp naa ne ndigal li moom kenn du ma ci jiitu waaye doxeen wi wi ngay dox ci dëkk bi ci méngoowut ak li la jox ci ndigal li moom faaw di ko wax loolu moom bi ay bis gu ne dana ma dégg ma wax ci xam nga loolu dafa metti ca li may wax rek bu fekkoon dafa yem ci ndigal doxal ko ñun suñ maturité ak suñ xam-xam kenn mësuñoo dégg ñu wax ci commune bi dara mais nag bu fekkee dafa dem ba changer méthode ñu xam ne ni liggéey bi nga ko dénk moom ki ko dénk ñu nangul ko ci dénk gi mu ko dénk ngir ndigal waaye doxeen wi mi dox ci bitti dara rafetu ci war na noo mën a jàkkaarloo nag yow na ko lii ngay def rafetu ca dëkk bi mi ngeen a xas ak i mbalit dëkk bi ci jëmi boppam fu bari nawet bi ba léegi si mi taa dëkk bi fu bari fa bare ay làmp amu ko ñenn yi dox di ci daw guddi ak bëccëg bërki de bala am ngiraaneen bañ ko yooxu kan nga fa dégg ñu dem waa Tuubaa ci kanam ñoo fa dem saafara làmp yëpp ah saam gee même problème dëkk yeneen yi même problème kon jàpp naa ne yitteem ak soxlaam nit ñi waruñu koon a gën a gore nit ñi danoo am ngoro ak daale taalibe nangul sëñ bi ci dénk mu ko dénk moom nag dafa waroon delloo nit ñi njukkal ci lu mel noonu mais bu demee bu delloo njukkal ci noonu xamal ne àq yu bari mi ngi ko yore parce que nit ñi sonn ci nit ñooñu sonn ci sonn gin sonn mi ngi répété wu ci lépp parce que nit ki nekk ci ab dëkk am di dund ci ak lëndëm dëkk bu tedd bu mel nii wala nga nekk ci ab dëkk yow ci sa jëmi boppam mbaleen mi nag xas ci sa buntu kër ah doonte yaa ngi wéyee ndigal am nga ci sa biiru xol lu ca nekk lu ne lab bu ci boole ngay miire ay gone ak di xeex ay kilifa ak di waxante lu ñaaw ay kilifa rek denk nañ ma ko mënu mënu leen ci dara loolu yaakaar naa du du wërta nekk euh, maanaam doxaleen wu rafet loolu nag moom dama koy continuer di ko dénoncer na arrêté li muy doxal parce que ni muy doxal na ko soppali parce que dëkk bi mu réewtul loolu ki ko ko dénk yi ñun ñëpp dañ koo nangul ca kenn xam ko ci ay caaxaan muy sëñ siidi di nit ku dëkku di wér ndax lépp ci sëñ Abdou Lahad la ko jëlee woon kon moom tur wi nga xam ne mooy muy lay wuyoo muy sëñ Abdou Lahad sëñ Abdou Lahad fii la daan toog ne sama kees kii ah, ah leetar bu ne ñu ngi ko fi sànni wax ju ne ko ci sànni waaye dane kuy dox jëm ci sa kanam doo geestu waaye moom ab geestoom moom moom mi mi ngi jëm ci lan mooy miine ay nit bu kenn wax bu kenn yëkkati am na ci ñoo xam ne ay kilifa lan ñu baax lan nekk fa ay kilifa joxe leen mais kilifa ci biir mbir moo yore dafa am solo ndax boo ñëwee méthode bi ngay doxee danga dem ba ñenn ñi bu la bëggee wax dëgg duutuñu ko def parce que li tax duutuñu ko def mooy méthode bi ngay doxee luñ mën a def dañ fay nekk di foto di xoole ñeneen ñi nga xam ne seenu làmmiñ lañ yor buñ génnee mën a wax leneen nga bu ko defee nga fatoog ñoom ñeneen ñeneen feneen bëgg yor seenu làmmiñ nga woo leen dugal leen ci biir conseil yi parce que am na ci ñoo xam ne ay sëriñ am na ci ñoo xam ne ay conseil leen dugal xool man mun Modou Bara Dolly depuis ci ba léegi si ba fii bay wax a yow musuma ñu ne da ngay tànn conseil may dem ci fenn wala may laaj kenn wala may wax kenn dama ne woon li feeg laat kam mi ngi koy yore li feeg mi ngi koy yore man sëñ Modou Bara Dolly doo dégg mukk may xataraayu wala may taxaw naan ci conseil laay bokk ndax xam nga lu tax dafa am nu ma lu ma yàlla bindee man mënumaa toog ci taabal nit di wax loo xam ne dara amu ci wala nit di wax loo xam ne dara du ci dëkk may tàcc wala ma koy comme que nag xam naa sama bopp ca xam naa doxeen wi moo tax doo dégg mukk mukk ci àdduna ilaa yawmi diini bu ma doon wër na ala obligatoire mu doon du yàgg yàgg ba ma bokk ci ndax bis bu ma ca bokkoon la muy doxal fa ma toog ci taabal yàgg ci bu boobaa <laughs> sama méthode la ca bu boobaa moom ci jëmi boppam danaa seede seen liggéey parce que dëgg ci fu ma toog wax ko parce que du la ñu fa yóbbu muy ay conseil wala loo fa war a yab waaye population bi nga xam ne ñi ngi nekk ci ay jafe-jafe nekk ci ay ndox yu taawu nawet bi ba léegi si nekk ci ay làmp yoo xam ne kiiwut nekk ci ay wàllu euh, euh, euh, docteur xam ne amut lenn loo xam ne fi mu maanaam lu mu war a doxal ci dëkk bi ci lu meloon noonu ci bitse bi at mu jot ñu wate ko loolu lañ koy laaj ñun fi ñu koy laaj laaju fu demandé ñu ko mu wut ay ndaw ñu koy tontul ak ay ndaw yu koy xulool ak di xas nit ñi wutloo ñu ko liñ koy laaj mooy lii ñu koy dénk ci ñu nangu ndigal li dénk gin ko ko dénk lim ci génne ci dëkk bi muy doon ay euh, bitse fan la koy def ba munta feeñ ci dëkk loolu lañ koy laaj xam nga loolu mooy li ma la wax loolu du ma ci tontu askan wa ñoom la ma boole ak ñoom xam naa ko ñoom xam nan la ma boole ak ñoom xam nan la ma leen yéene xam na lan la ma leen bëggal kon jàpp naa ne gone gu yorulaam bi ñoom di wax ngir mag lu mu koy mosal euh, mais c'est normal c'est normal ah gone yu ci bari bëri liggéeyuñu gone yu ci bëri nu ngu ñoo daani dool seen doole kon nun mën a def rek ah la woykat boo xoon rek kuy woddoow làmmiñ ah ah voilà kon man amul lu may téyil gone yi wala lu ma leen di ko ci mën a wax loo man a wax baal naa la amul lu ma lay toppal parce que comprendre naa la comprendre naa la bët bu rusu toj waaye ki ma mënta comprendre mooy kin fi nongul ngir dëkk bi ngir ndigal mu wàññi ko moom di jël ay gone ñu koy waxal ak di ko ak di ko xeexal loolu laa mënta comprendre loolu du mission mais gone yi mën amul lu ma leen di wax parce que comprendre naa leen maanaam lenn lu jaar yoon ci li Abdou Lahad Ka di doxalee maire bi aw ci du ci assainissement du ci wàlluk éducation du ci wàlluk santé du ci wàlluk euh, éclairage du ci benn domaine domaine boo dem zéro la leen na fi nekk ma wax ko waxati ko muy Touba ci kanam boo xoolee lamp yi ci dëkk bi yëpp parce que moo ko def beneen côté bi ci desit ak yoo xam ne état ko fi def ndax am na 2000 lamp yee ñu doon wax barki démb président moo ko fi def am na lamp yoo xam ñu koy adressé ay maire bi nangam ci def fi dara mais président ko fi def mais li ma la wax parce que lu mu ci mën di doon lu ne bu fekkee ne dangay jaawale ab maire ak sab entreprise c'est ça le problème maanaam dafa jaawale mairie bi ak entreprise am parce que am na loo xam ne sa entreprise la entreprise bi muy liggéeyee bu ko bëggee jaawale ak mairie bi mooy indi problème parce que ñaar yu bokkut la nit ki dama jàpp ne commune aw askan nga nekk nga jiite ñu teg fi ngir ngay dox ci soxlay nit dama jàpp ne nag boo demee ba jaawale ne sa entreprise su bopp la koo fay teg ku lay tàgg la ak ku lay ku lay défendre ko xooloo soxlay nit ñi xooloo yittee nit ñi xooloo problème yi nit ñi di jaagan askan loolu àq la àq bu mag a mag la am na ci loo xam ne sëñ bi nit ñi ñu ngi koy dund ngir ndigal la ndax ñun ñun sëñ tubaa bu ñu doon deet ñu koo génn sëñ tubaa it bu ñu doon deet ci ndigalam la nekk waaye yow min jox ndigal li nga di ko doxal wan façon nga ko di ko waxee nga nga bàyyi xel ni nit ñi fi nekk ay doomi aadama lan ci àq am na ci yu bari am na ci yoo xam ne ala kulli alin ak wéy ci ndigal eh, nga xam ne amutoo ci soi mais am na ci yoo xam ne métti na loolu ci population bi moo tax ma wax la loolu ni dafa jaawale entreprise am ak <laughs> maire bi c'est ça que la bu waree problème parce que nit ki bu fekkee ne yor nga entreprise bu mag yaa ngi daw ci ay milliards yaa ngi daw ci ay gagné marché yaa ngi daw ci ay nangam nooy seeree commune mais sëñ bi dafa am loo xam ne xel mënu ko dong mais yooyu yëpp it mooy li ma la wax rek li ñu tënk muy baatum ndigal xamuñu lu mu koy def waaye nag am nañ suñ fulay nag li ñu gis mu di ko doxal ca tegu ko ci aw yoon moom ci jëmi boppam ñu mën ko joxoon ko li taxaw ca loolu nag man tàmbale naa ko ca man sama mbir moom bu ma ko tàmbalee yaakaar naa ne ah du ay waxi gone ak ay xubaat rek ak ay wax moom moomay taxaraaw musuma cee tudd musuma koo wax de waaye nag li ma gis moom ak ni ma gis muy doxale ak euh, ñi ko wër nga xam ne maanaam jëlu leen ngir ne mën nanoo liggéey li mën na def la dañ ko jël leen jël ngir aw làmmiñ ku fa ëpp làmmiñ yow yaay gën a yaay gën a xejj ci moom <laughs> ah loolu duñ ko yore am maire de mukk ci àdduna duñ ko yoree maire de am maire résultat lan soxla ci moom.